mooy seet si monsieur le maire Jamil Sané ak euh, conseil municipal am ñu waroon seq waxtaan ci collaboration boo xam ne bëgg nañu commune des Parcelles Assainies ak commune de Ziguinchor def ko ci liggéey boo xam ne ci liggéey boo xam ne war nañoo mën a jëriñ ñun ñëpp ndax yéen ñëpp xam ngeen ne Casamance. ci li ñuy wax potentiel économique ci kom kom té du ci bëri di yàqu ci àll bi ñu xam ni Parcelles Assainies commune bu maga a mag am lu mat 450000 habitants wara a wara a a soxla lu bëri lo xamné ma ngay yàqu fële kon lool mo ñu andi won ñu ñëw monsieur le maire dalal ñu ak euh, conseil municipal am ci anam yu rafet biñ ci génné nak la mané il faut ñu jaar fii nuyu militants yi am na quelques militants yu daje fii ñu jaar nuyu leen kon ñi ngi nuyu kilifa yi ñu fekk notable yi di nuyu militantes yi ak militants yi jeunes comme moins jeunes di nuyu dëkkandoo yi taxaw seeni terrasse wala seeni balcon bi ñu déglu di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp fële nag liggéey ma fa yóbboon fii politique moo ñu fi andi nee naa leen kàddu gi du gudd yéen ñi ñëpp su ngeen fi dajee Sénégal yëpp bu amee yaakaar ci ñun la liggéey suñu digganteeg yéen ci juróom-ñetti at yi weesu moo tax ngeen am yaakaar googu du xaalis guñ leen jox du ay digg yuñ leen def dañu waxtaan ak yéen ci réew mi wax leen li ne ci réew mi wax leen li ko yàq wax leen li koy defar moo tax ngeen wóoluñu gëm ñu ba di ñu topp ba mu jaral leen ay sacrifice loolu nga xam ne nag dañ koo bokk liggéey ba egsi nga xam ne tey ku am seetlu ci senegal ku am seetlu ci Afrique ku am seetlu ci àdduna dina xam ni fukki weer ak ñaar moo dox suñu diggante incha allahu ak ñu mun a yegg fa ñuy jëlee décision yi ba jël décision yi baax ci askan wi loolu ñëpp xam nañ ko yaakaar googu nag nga xam ne sénégalais yi am nañ ko moom la ay tappalekat ay tappalekat yoo xam ne Macky Sall moo ci jiitu xam ngeen ñu leen di gërëm maa ngi nuyu ñi nekk ci biti yëpp te ñoo dugg ci kër gi bu ñu dajee fii bañ a bañ leen may lu ñuy defee li ñu yàgg a def moo tax ñu daje fii ndax suñu génnoon taxaw fii léegi ñu ne trouble à l'ordre public te bis bu ne ñoom seeni militant nekk ci mbedd mi te kenn du ci wax waaye li ma bëgg a wax ma dellu ci li ma doon wax sénégalais lay waxal ñi fi nekk échantillon bu ndaw lañ ci est-ce que sénégalais xam nañ ni li nga xamné motax ñu am yaakar ni ëlëk dina dàq tay li nga xamné motax ñu am yaakar ba di muñ jafé ba jafé jafé ñu dund yépp parce que sénégalais bo jël japp na ni nu mu metti metti metti fii ak février 2024 mu jeex bu soobé yalla loolu nag loolu nag la ay tappalekat yoo xam ne nee naa leen ki ci jiitu mooy Macky sal ci boppam bu fas yéene ci ànd ak ay magistrat lenn ci justice ñoom jàpp nañ ni mën nañu def ay pexe ba février 2024 Ousmane Sonko mii taxaw seen kanam du nekk candidat ci élection mbokk yi est-ce que bëgg ngeen Sénégal bëgg ngeen Sénégal gis nga réew mu mësa baax ci àdduna dafa am génération boo xam ne dafa nangu joxe lépp pour que suñu doom yi ma gis nii xale yi am juróomi at tekk bi Sénégal bu gën Sénégal bi Macky Sall waruñoo ëpp fulla de moom ak ñett ñoo ñett wala juróomi nit yi mu àndal waruñoo ëpp fulla barki démb nag dem nañu fay ay nit xam nga ñun suñu man fi mu ne nii xaw moon sax dinaa fekk lii amul kenn ci yéen koo xam ne jox nañ ko cinquante franc ñoom ñoom barki démb barki démb dem nañu fay ay nit ñii deux mille ñii cinq yéen ñëpp gisandoo ngeen xale yi nee nañu ñun Sonko la ñu àndal kaas kaas kaas moo ñu tax a ñëw fii kaas kaasu Mbàkke moo ñu tax a ñëw fii waaye ni am solo ci daje boobu am na benn homme politique bu dëkk fii parcelle nee na homme politique boobu nee na léegi dafa am fit kooku maa ko xam man man maa ko xam ku gën a kooku ci àdduna amul waaye nee na léegi dafa am fit ba ñu lay dànkaaf homme politique boobu ñu koy tuddee Amadou Ba ndax man bokkuma ak ñoom man damay jaar ci digg ba nee na force restera à la loi gis nga si force devait rester à la loi moom tey mi ngi taxaw ci kanamu yoon di layoo fa mu jëlee ay ay milliards Sénégal ñu warul wax rek ñooy wax tapale bi taxna bu ko amuloon fit ko waron wax tay mom moy wax waaye nag bukki bu yabee waxambaana waa parcelle ndax pare ngeen keroog dama wax Kër Massar may leen gat sa gat sa mbir mi jeex na de te fiñ koy doore mooy après meeting de Mbacké bi te Mbacké dina xumb de te kenn lañ du jox xaalis bi mu dem fa duñu seen moroom la ñu yem waaye bu soobee yàlla après meeting Mbacké bi la ñuy mooy manifestation nationale et internationale dootuñu ko def dootuñu ko def benn bërëb commune bu ne ci Ndakaaru na def manifestation xam ngeen pour lan pour ñi ñuy jàpp bis bu nekk bis bu ne ngeen dégg jàpp nañ nit barki dem am na kuñ jàpp fii Parcelles Assainies Macky Sall dootuñu ko may loolu nappaate bi jeex na jaay doole bi jeex na bu Macky Sall jam la bëgg dina am jam ci réew mi bu dee bi la bëgg na xam ni réew mi mom ko don ko ci ay baax kon dañu bëggé wax gi ñu ngi leen di gërëm liggéey gi dina ñëw dama né xam nga ñom ñi bokk APR comme gi nañu s'il vous plaît merci dama ne ñoom waa APR xam nañ ni duñu seen morom ci réew mi xam nañ ni minorité sociologique lañu xam nañ ni minorité politique lañu ki dem barki démb ñu ne mooy premier ministre naan ñun lay menacé. ñëw na fii parcelle juróomi weer ci gannaaw xëpp fi xaalis bu dul jeex fan la mujje dóor nañ ko dóor yu métti seen mbir yëpp nag yaakaar nañ ni suñu làqoo ci gannaaw gendarmerie ak polis war nañoo mën a def leen neex ci réew mi réew mi jàmm moo ci xaj na ñëpp dox jàmm waaye su amee ñu foog ni mën nañ nekk ci jàmm teg ñeneen ñi na ndax nañu seen bopp té lool wa affaire nañ koy gis ni ku tay kon ñun ñepp nañu wajjal suñu bok aduna ñun ñepp dañuy romb rek ñun ñepp dañuy romb ku fi nek rek amoon nga ko xam ko magando wala ko te nekatu fi amul dara lu fi jara ragal duñu nangu Macky Sall tapalé ak justice am pour tere ñu ñu candidat 2024 jël réew mi defar ko ba Sénégal ngay gis ci boppam loolu duñ ko nangu kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox di daje fan yi incha allah asalaamaaleykum. Sonko Sonko Sonko 快点！快点！快点！